fekk baax wóor na te am na garantie EBG voyage mu leen di may li ci yéenekaay yi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 jàpp na bi chers internet yu enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko ci du quotidien bi des soit ci visite bi nga xamante ni président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ko ci douane France yéenekaay bi ne presque amul benn changement nag ci rupture bi nga xamante ne nii ñoom waa Pastef yi ñoo ngi ko doon xëcc di ko woote yéenekaay bi ne booy xool Jean Biagui di enseignant chercheur mook Bakary Magne wëndiwul presque même pratique yi daan am démb moom la gis gouvernement bu bees bii di ko jëfandikoo ci suñu diggante ak waa France continuité la ñu gën a gis que rupture les éco yéeni kay ne en tout cas état bu Sénégal moom mu ngay xuppaatee moo ngay avertir na commerçant yi gannaaw ba mu jëlee ay mesures jëmale ko ci dund gu cher gi nga xamante ni à partir de tey altine ji prix yi nga xamante ni ceeb ak diw ba ci ciment bi daf ko doon jar lépp la ñu mujjee wàññi état bu Sénégal dem bay joxe numéro sax boo xam ne bépp commerçant bu respecté wul yoon ak mesures yi état bu Sénégal gi jël jël askan bi mën nañ koo boole te su boobaa tamit yoon dana dal ci kawam mesure yi ni mel nag yéenekaay bi xamal nañu ne dafa mel ni mujjul indi solution waaye problème la mujjee indi ndax producteur u farine nag fi mu toll nii dañoo mer nee nañu du liggéey laa wax di perte bu Sénégal boolewu leen nag ci dialogue bi li gën a wóor nag jamono ji moo dañu togg ak ñoom autorités yi waxtaan ak ñoom ba ñu déggoo ci ay kàddu lii moo gën a sedd waaye bu ñu sukkandikoo nag ba jamono ji te mesures yi état bu Sénégal gi jël ñoom producteur u farine yi nag arrangé wu leen donte tey jii nag la bu Sénégal sàkk sàkku ne amul baale na ñëpp respecté laa la wax mesures yi fekk jamono jooju moom ministre des finances ak microfinance économie sociale ak solidaire teg ci table bi lu toll ak un milliard de francs CFA pour jébbal ko lu toll ak juróom fukki organisation ñeent nekk ca doonu Bambey financé leen ngir ñu daal di liggéey Aliou Diollo ni xam ne ci biir yéenekaay bi ne lii nag ay leble la yu ñuy defal nag askan bii ngir ñu mën a liggéey waaye amul kenn koo xamante ni suñ la lebalee ba noppi dinañ la bàyyi nga ñàkk fay léegi fa yéenekaay moom dellusiwaat ci mesures yi nga xamante ni état bu Sénégal jël na ko jëm ci dund gu cher gi yéenekaay bi di xamle ne coow li nag fi mu toll nii mu ngi ci producteuru farine yi ñoom fi mu nii nag ñoo bëgg a xajamal mbir yi ndax ñu ngi xamle ci biir yéenekaay bi ne bu état bu Sénégal bi waxtaanu te ñun xawma lan waaye mbuuru bi moom mënta wàññeeku ñoom producteurs yi di xamle ne état bu mu toll nii laa la wax financement bi ci boppam moo des sa boo meetul ñoom dañuy perte duñu engagé nag réduction boo xamante ni buñ ko defee ba noppi dañuy perte daanu ba xalangu laa wax ci farine bi tey nag ci altine gi yéenekaay bi xamal nañu ne soo moytul ñoom producteurs yooyu dañuy dugg ci grève kenn dootu fi produire laa la wax farine ba ñuy wax sax naan mburu dafay am jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloo nguur gi yéenekaay bi xamal nañu ne soo moytul mesure yu état bu Sénégal gi jël dana am yu ci sooxee en tout cas ñoom nguur gi saagu faran bi ñoom nee nañu gàlloo nañu li toll 2645 francs waaye ba tey jii laa la wax coow a ngi ca biir fa état bu gi nag di mujjee jéeg-jéeg producteurs yii mooy toog rek toog rek ngir mën a régler problème bi lu ko moy mesure yi du mujjee fenn ndax producteur farine yi nag soobu nañ ci grève lii ko tujjee def taxaw selu ci dem ak président de la république Bassirou Diomaye Faye réewum France yéenekaay bi dañu xamal ni la Macky Sall doon def dong nag le président Bassirou Diomaye Faye di def diggante Sénégal ak réewu France benn jafe-jafe amu fi booy xool sax Sénégal fi mu nii dafa gën a jege France ndax lu ëpp 15 milliards de francs CFA réewu France dina ko financé mu ñeel wàllum production te Sénégal tamit fi mu toll nii dugal nañ ko loolu tamit jëm ci wàllu production de vaccin naka noonu tamit institut Pasteur bi nekk fii ci Dakar am na partenariat bu dëgër bu mu ni mu ngi diggante Sénégal ak France jafe-jafe laa la wax amu ci te demu président de la république bii nag dëggal na ko Le Quotidien yéeni kaay ne Sénégal kay ci problème yi mu nekk dinañu ko xam bu premier ministre Ousmane Sonko demee ci assemblée nationale hypothèse yi nga xamante ni moo fas yéene jàkkaarloog président Sonko difficulté yeeg possibilité yi lépp yéeni kaay bi deesuwaat na ci dem sax ba ñuy xamal ni am na ci député yoo xamante ni ñoo ngi koy waajal lépp lu ñu bëgg a bu fekkee ne nguur gi def leen koy tere boo moytuwul nag dinañu saisir la wax conseil constitutionnel aji mergaan kanute moom jàpp na ne Ousmane Sonko tôt ou tard dina dem ci assemblée nationale loolu obligation la nekkul loo xamante ni dafa laaj ay négociation l'observateur ne négociation kay fi mu nekk jamono ji moo di ci état bu Sénégal gii laa la wax ak commerçant yi mesure yu président Bassirou Diomaye Faye mi jël wàññi dund yi defarkatu farine yi fi mu nii ñoom gisuñu ci seen bopp dañoo jublu nag fi mu nii ci grève ne dootuñu defati production feeg waxtaan amul laa la wax seen diggante a Sénégal gi jël yeneen yi nga xamante ni état bi tamit jël na ko muy anticiper nawet bi nga xamante ni dugg nañ ci ba noppi bu ñuy xool jamono ji laa la wax lu ëpp 47 milliards perte gum na ko lépp ngir anticiper nawet bi armée nationale bi ñu jël tamit bëgg koo dugal nag ci xeexu mbënn mi yéenekaay bi yaatal na ko ne bu amee génn jaaxle-jaaxle goo xamante ni état bi jaaxle na ko lu ñu mën nag ñoo koy def ngir inondation bañ a am le point actu ne inondation kay fi mu am a jëlu ko génn na daat fiy wax nag wax ju gàtt ne ci fan yi ñu jëm nag dana gën a leeral position ngir mën a dëggal boppam nag ci langue politique gi yéenekaay bi ne bu amee ñenn ñoo xam ne ñooy dooleel Amadou Ba weesul Abdou Latif Coulibaly Omar Sow Cheikh Omar Anne ak Cheikh Omar si ñii ñoo nekk ci ginnaaw Amadou Ba bëgg ko jàppale ci yoon wu bees bi nga xamante ni la fas yéenee jël du mooyu président Macky Sall ba noppi défier nag APR ndax Amadou Ba mi dina def comme ni mu fa waree cas bu dee Mimi moom jàpp na ne chefu Amadou Ba la wax di Macky dafa war a ñëwaat fii ci réew mi répondre ci ay responsabilité am tooxi doona yu mu doon def ci nguuram yépp nag mu jàkkaarloog yoon layoo ko moom mi métro di xam ne ci biir yéenekaay bi ne mësul contre loi d'amnistie waaye nag ñi fi rey ay nit yàq fi ay liggéeyu jàmbur ñooñu dañoo war a dem wuy ji yoon enquête yéenekaay moom def taxaw seetlu ci journaliste yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci langue politique mbir yu toppandoo la wala boog engagement la en tout cas bu ne sukkandikoo ci bi xamal nañu ne ñoom journaliste yi fi mu toll nii ñoo ngi ci tendance dëgg nga tàmbalee ñëpp xamoon nañ ko en tant que militant Maxam Mbay moom waxatuñ ko woon Ahmed Aidara jamono ji mu ngi ci langue politique gi naka noonu Bougane Gueye Dany ñëpp a xam posture am ci wàllu politique yéenekaay bi yemu ca de ndaxte mu ngi xamal ne Souleymane Jules léegi politicien la Yoro Dia léegi politicien la Sadikh Top léegi politicien la Mamadou Bamba Ndiaye léegi politicien la lan la mën a impact nag seen rôle en tant que journaliste ñëpp a ngi teg seen bët Vox Populi ne docteuru Sénégal yi kay li ñu teg seen bët bëtiital leen moo di mbas mi di nga xam ne yegsiwaat na ci réew mi dañu xamal nañu ne docteur yi seetlu nañ ne téeméer boo jël ñaar fukk yi jàpp juróom-benn fukk yi fi mu toll nii mbas mi dugg na leen ñu indaale ko ci réew mi yéenekaay bi duñu xamal ni Charles Bernard Sagna di médecin service contrôle sanitaire ba nekk ci AIBD nee na ministre bi lépp lu mu mën rek moo ngi koy def ñu ngi assurer population bii ne mbas mi dugg na yaatu yéenekaay bi def taxaw seetlu ci mbas mi nga xam ne dugg na ci réew mi ne sénégalais yépp ñib seeguñ ci réew mi ne waaye ñu fi ñëwagum dong dafa am ci ñoom ñoo xam ne gis nañu ne mbas mi di covid 19 mu ci ñoom donte gëj na ci réew mi waaye waaye nombre bi fi mu toll nii mu ngi gën a ëpp lii yëpp nag boo moytul état bu Sénégal gi jël ci mesure am interdire nganale yi nga xamante ni day permettre ñi demoon màkk di nekk en contact direct nag ak population bi ndax loolu su boobaa mën na gën a yaatal nag mbas mi mën na la boo moytul laa la wax nganale ñu interdire ko ren ji ndax lii commencé xeeñ neexul te lii raam ci ñag bi la jëm fa amee place nag du gaaw a génnaat yal na ko fi yàlla gaaw yemale yal na ko fi yàlla gaaw yemale ñeen nag jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah